ginnaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala ci teew bi ñu fi teewaat tey jii nii ci ñetti weer ci ginnaaw ñu ngi fi woon jagleel li lu Tiwaawan ay moto pompe ndax mën bi ñi nga am mbégte lool nekkaat fi tey di ñaanal suñu maam lu xalif général di ci jàng maam Sëriñ Babacar Sy ak famille yu Seydi Hadj ak suñu maam Seydi Hadj Malick Sy lépp ak euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi protocole bi moom waxoon nañ ko sànq duñ ci ñëwaat ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant suñu teewaayu tey jii mooy jagleel ambulance médicalisée bu ñu nee ambulance médicalisée mooy man ambulance boo xam ne am ay jumtukaay ci biir loo xam ni bu urgence amé manam lu jàmp amé mun nañu wallu ki nga xam mi ngi ci njàqare waral ñu ambulance bi ville de Tivaouane andi ko ci centre de santé El Massamba Sall di famille am di ko ñaanal mon itam ambulance naam ñu ko ak ay garab yoo xam ne ñu ngi ko centre de santé bi waaye ñu ngi ko jagleel tamit hôpitalu Tivaouane ndax ñun dañu am li ñu wax responsabilité sociétale d'entreprise responsabilité sociétale d'entreprise maanaam ñun Sonatel suñu ndigal ñu directeur général Sékou Dramé mi nga xam ni tey su sañoon mu teew fi tey mooy directeur général Sonatel mooy aussi président du conseil de fondation

moy wérgu yaram moy lépp boo amul wérgu yaram doo mun a nelaw doo mun a lekk doo mun a def dara donc ñu xam ni loolu priorité la priorité ci fondation Sonatel ci éducat accompagner l'État à travers le ministère de la santé et de l'action sociale fii nii tey jii euh, docteur Camara di leen fi teewal ñu leen di accompagner pour vraiment ñu seet naka la ñuy munee wàllu population bi ambulance bi pour la gestion des urgences maanaam bu amee lu jàmp dañuy ñaan yalla taxi yeeg charrette yeeg moom nekk suñu ginnaaw di ñaan yalla vraiment euh safaan jogé fi ba ko xamni soxla nako ñu dal di kay comme ni ñuy waxoon sank référencé manam jël ko yobbu ko fo xamni mën nañ ko faj ci lu mu gën a ci lu mu gën a loolu mooy gestion des urgences lii nag dañ ci lëkkaloo ak ministère de la santé ndax saa su ne dañuy lëkkaloo ak état pour xool fan la ñuy nan la ñu mun a lëkkaloog moom pour gérer les priorités mooy li nga xam ni moo gën a am solo loo gën a jàmp di féliciter corps médical nga xam ni ah ñoom kenn amul seen fay dañ leen di ñaanal rek ndax ki nga xam ni suba ba ngoon liggéey yu nga mooy faj ñi nga xam ni dañoo feebar di leen seet di leen toppatoo di leen nemmeeku témoignage yi wane na ko sànq donc ñooñu dañ leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen wax nag ñi ngi euh, niñ leen di ñaan di leen ñaax ambulance bi ngeen sàmmal ñu ko sàmmal ndax ambulance bi population bi lañ ko jagleel pour que ñu mun ko jëriñoo fii rekk ati ati at incha allah di

saytu li nga xam ni population bi moom la soxla ñuy di ci dox guddi di ci dox bëccëg ba li am tey donc ñoom tamit dañ leen di sant di leen gërëm di leen wax ngeen tàccu leen bu baax. di gën a gërëm équipe ndax man maay naan maay administratrice yi waaye dama ànd ak sama équipe benn délégation boo xam ne ñoom waa fondation suba ngoon ñoom tamit ñu tàccu leen bu baax. ak suñu représentant nga xam ni vraiment jàppale ñu toog lool ci organisation bi muy Souleymane Seck qui représente ici le directeur régional de de Sonatel Thiès ngeen tàccu ñu bu baax. donc ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñëpp am wér-gu-yaram. ñu ngi ñaan yàlla ba kenn du manqué ambulance bii. yàlla na barkeel yàlla na fi safaan jóge di leen sant di leen gërëm. may euh, nuyu ñi fi teew ñëpp mais di jiital ci nuyoo bi le xalif général de Tijaan sëñ Babacar si Mansour di ko ñaanal mu yàgg fii te wér nuyu aussi assistance bi fi teew yëpp tàmbale ko ci ki ñu dalal fii mooy le médecin chef de district de Tivaouane le docteur Camara nous nuyu aussi le chef de service nga de en particulier le directeur de l'hôpital Mame Aziz de Tivaouane Nous jiitu aussi les collectivités territoriales à travers le représentant de la présidente du conseil départemental mais également ki fi madame la présidente madame le maire euh, monsieur le maire du moyen de la commune de Tivaouane aussi euh, le, chef d'agence de la Sonatel mais di nuyu aussi le fi la famille du parrain là, je me semble Massamba Vous voyez aussi Badian gox chef de quartier à Dieu. mais may beral évidemment madame l'administratif, l'administratrice générale de la Fondation sonateur De New Ma présence ici aujourd'hui en tant que préfet à cette cérémonie solennelle de remise d'une ambulance médicalisée ainsi qu'un lot de médicaments à la ville de Traon symbolise beaucoup de choses. En effet, ce don important de la fondatrice de Sonatel, de la Fondation Sonatel, s'inscrit parfaitement dans la vision des autorités étatiques en matière de promotion d'une santé pour tous et de l'amélioration de l'offre de santé pour les populations. Je voudrais donc à ce propos remercier vivement la, fondatrice, la Fondation Sonatel à travers Madame l'administratrice générale et également à travers elle euh, remercier Monsieur le directeur général de la Sonatel et lui transmettre les remerciements des plus hautes autorités du pays, euh, en particulier euh, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cette action, cette offre, ce dont je l'ai dit tout à l'heure, contribue véritablement et de manière substantielle à l'amélioration de l'offre de santé, mais également à cet objectif qui est très cher aux, aux, aux, plus autorités du pays, c'est-à-dire l'amélioration des soins de santé, mais également euh, la, modernisation de nos infrastructures sanitaires. Je crois que c'est très important. Je ne pourrais que donc louer cette action, Madame l'administratrice euh, de la Sonatelle, vous remercier, mais également vous encourager à poursuivre de telles actions. Je puis espérer que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin si l'on sait que vous intervenez aussi non seulement dans le secteur de la santé, mais également dans le cadre de votre politique de RSE, dans d'autres secteurs comme l'éducation, etc. Je crois que le département de Théon est fort de deux districts sanitaires et qui euh, euh, embrasse des zones très reculées je veux parler du caillot des profondeurs euh, avec le district sanitaire de Méré qui euh, donc polarise les zones euh, reculées comme Gangdou, Mbayen, Kielmacha, Pekes. je sais que peut-être, j'imagine que, ou j'espère que une autre action aussi permettra en tout cas de toucher ces populations très reculées. J'ose également espérer que les secteurs comme l'éducation, comme je l'ai dit, comme en tout cas l'accompagnement des femmes, l'agriculture, pourront aussi bénéficier des actions de la RSE à travers la Fondation sanitaire Je terminerai pour dire que je suis rassuré. Euh, en entendant parler le médecin-chef de district, mais également le représentant du personnel, quant à l'usage qui sera fait de cet outil important. Parce que avoir une ambulance, c'est une chose, mais également savoir l'utiliser, savoir l'entretenir pour également assurer sa durabilité mais également faire en sorte que l'utilisation puisse correspondre à, aux besoins, je crois que c'est important. Et là, je suis très rassuré que tous les soins nécessaires seront apportés, en tout cas, à, ce, véhicule-là. Et comme l'a dit le docteur, il ne fait l'objet d'aucun doute que cette ambulance vraiment répond à un besoin, à une doléance qui est très vieille et qui aujourd'hui se trouve être satisfaite. Et je l'ai dit également tantôt, c'est une action de la sonatelle qui vient en complément des efforts importants qui sont fournis par l'État en matière donc, euh, de relèvement des plateaux techniques de nos structures sanitaires et également aussi à la modernisation euh, des offres de soins. Je crois que c'est des choses que nous, que en tout cas véritablement. Donc, ci rek di madame l'administratrice générale de la fondation Sonatel madame Koura Sow euh, mais aussi Euh, directeur général de la Sonatel gërëm ko ci li ñu def muy li ñu indi tey jii jox ko hôpital bi mën naa na jox nañ ko euh, tiwaam yépp ndax euh, liggéey bi muy def ci di wàllu nit ñi mais aussi di sauver ay bakkan loolu ñëpp ñoo ko bokk kon ñu ko ciy gërëm bu baax mais aussi di ko ci indil gërëm kilifa yi yi nga xamante ne ñoo ngànk réew mi rawatina le ministre de la santé bi nga xamante ne bii moom la njiit réew mi dénk lépp lu jëm ci wàllu wellu wér-gu-yaram donc loolu nekk lu am solo muy ndimbal loo xam ne aussi wax nañ ko sànq fekk na aussi ñu soxla ko fii bu baax a baax ndax ambulance moom mën naa ne du doy état lu mën di def aussi bien que état mu ngi def ay effort lu bari mais loolu du doy mukk tax na euh, yu mel ni action yu mel nii Sonatel di ko def pré ñeneen di ko def en matière de RSE dañ koy encourager bu baax a baax kon madame l'administrateur ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di la yóbbante aussi nuyoo ci le directeur général de la Sonatel ci ne teewoon am na ci kontante di ñaan aussi que lu mel ni aussi ñu mën ko yaatal aussi ci département bi nga xamante ni bi am na ñaari ci sanitaire benn mu ngi fi teewaan ne beneen aussi mu ngi ngaay mexe te dafa am ay ay gox yu xaw a sori yu xaw a ruqe lu mel ni ay ngañ juuf ba ci pekkees ba ci cilmaxa ñooñ aussi yaakaar naa ne lu mel ni wala yeneen action ci wàllu tabax ay jumtukaayu wér yaram loolu aussi ñu ngi ciy xaar la fondation Sonatel ba gi sax yeneen secteur yoo xam ne bi ci wàllu éducation leneen euh, ñu mën a aussi jariñu ci action yi nga xam ne bi Sonatel daf koy def dans le cadre la RSE loolu bëggoon naa ko aussi wax bu baax di wax ne rek sama xel dal na ci docteur Camara li mu wax ak aussi ki nga xam ne kii muy madame Diouf mi doon wax ci turu personnel bi ci ne ambulance bi dinañ ko jëfandikoo dinañ ko yor ci anam yu mucc ayib ci fexe ba nga xamante ne ji la ñuy def dina dëppoo ak li taxoon ñu jox leen ko waaye itam di ko toppatoo ci wàllu entretien ak lépp li tax nga xamante ne ji dina tax mu mën yàgg waaye tamit dina tax ñu mu gën a jëriñ askan yi nga xamante ne ji moo tax ñu jox ko waa Tiwaawan donc loolu laay wax doon am lu ma ci wax di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan aussi vraiment ambulance bi yàlla na jik district bi yàlla na jik euh, euh, dëkk bi mais aussi yàlla na li nga xamante ni mooy département